Hmm, dara jotu ba man ginnaaw yàlla yorante bi yow mii rek yaa tax may sonn ci àdduna. lu may leb ci àdduna ci lu baax yow lay doon sa waa di sembel doomu sembel bi hmm, hmm. xale bu baax la papaam ku baax la. ku am jom ku am ngor ku xam àdduna. waaye nag damaa bëgg man tam bu ëllëgee boo xamante ne takk na la. loolu ñu defal xale yi ma sang la jox la ko. yaakaar bañ tas. dëgg ah mu fekk ci yow loo xam ne su ëllëgee da lay fonk. Mm-hmm. te ñaar nga ci xale jigéen ñi nag léegi. Mm-hmm. te bu njëkk ba dafa nekkoon ci mag ñu ko góor bu la takkee fekk ci yow la ma xamante ne moom la war a fekk ci yow fu mu jëm da lay sagoo te da lay nawlu te du la fiire mm-hmm. waaye bu la takkee nga mel ne Samba Yande ngaan ay kurfeñ la koy wax <laughs> waaw ay xale ay xale jigéen ñu bari ñu leen di yóbbu hôtel mhm. ak loolu ngeen naan lim di wéyee lindem yel bàjjen bàjjen lindem yel la ñu ah moom wa pardon ah, bak laa gis nga loolu buñ ko defee ba ñëw ñaare la nga kenn karawam neewi mbaa <laughs> buñ ah xol bay tàng yi la ah, ah. bàjjen nag man bu dee mën na sa xel dal kon alhamdulilah moom bàjjen moom billaay ay waay kontaan naa waay oh <laughs> Iya, ay waay kontaan naa kon gitu ba nga juddoo ba léegi gitu. alhamdulilah bàjjen kan, kay moom na sa xel daal ah kon dinaa encaissé waaj dina ma jox millions ah dangaa bokk ci famille bu rëy fokk bokk ci famille boo xamante ku nekk ci àdduna lu baax la xam kenn xamu ci lu bon kon ma bëgg bu la may fi di sang di la di kër gi nga dem sa kër jëkkër bu bët setee bu ma wooyee bu ma dikkee mbambu ñu mi rek. sa loxo. <laughs> ko ma composé na guuran guuran guuran <laughs> sama bàjjen mooy sama xarit. te am nag. alors dëgg la la rek. lii daal bàjjen lii daal ah. moo fi nekk bëriwul nag. lii daal laa bëgg jox rek. lii daal la. ah paas bu baax. ay waay te mu xoolal xam nga nag man affaire xaalis yi moo ko laal. ah bàjjen nag. ah bàjjen yaa sama xarit. xarit xam wax la loo ciy def. wut kol bu mais bàjjen sax ci wut ay cerax ak kol bu baax parce que sam ne bi ñëw bis lañ may maye sama wax na la ko. moom kay wax na ma ko fi maa ngi yëgle xanaa kay damay jënd crédit. Ah, waaw kay jënd waaye tey maa bi damay jënd ci crédit. loolu bàyyi jëla cent mille rek. def nii rek ay cent nag. waaw waaw def rek def ko cent ba bàyyi dem bi loo ci xamul de ah. Hmm? séeréer yeeg yooyu te laala buñ ko def. gisul muy xëy. waaw ah, gis nga. mi ngi xëy tubaab. <laughs> yooyu xale bi doom yàlla na ma ko yàgg a jox. kontaan naa alhamdulilah rabbil alamin gis nga lii li muy neex neex neex. Hmm. lay jàmm ko gën. Hmm. moo dama ne. sa papa du ma ko takkal benn jéeg sax mu ñëw ci kër ki toog di la wéttale. ajjandoo moom du ma ko nangu jéegu la. ah fi mu nekk nii boo demee sa papa ku fi des kenn nekku fi di xanaa moom dong du dikk di ubbi di tëj di mel ne célibataire. boo sama yaay téléphone mu ñibbisi su ñibbisee fii nga xam ne nag bàjjen tamit yow tamit loolu loolu da ko war a dox. da war a wax sama papa mu bàyyi sama yaay ñëwaat ci kër gi. sa yaay li ma lay bëgg bëgg bëgg bëgg loola neex bëgguma loola naq loo dégg ci man la naqar sa yaay moom mënut a duggati ci kër gi moom kër gi doom loolu ëpp na sam nopp nañ bàyyi noonu rek kon mbaa ma dikk damay dikk di ko wéttali. waaw kay ma dikk di ko wéttali su ko defee nga sëyi. kontaan naa ay waay nga kontaan naa waay Aïcha ku baax nga pare nga turandoo ko mag ki <laughs> ah ni ngeen xaw a niroo tuutaay beeg xeesaay bi sax di ngeen ko xaw a niroo le ah Aïcha maa ngi dem bëgg doon naq na dégg doogul tëguñ te góorgóorlu takkal ba mu dëgër ba mu dëgër ba hmm? sa xel dal hmm. moom sa papa wérul de xam naa loolu ay pistolet lay <laughs> te mu jéggi àdduna xatal na ko waaye moom du bàyyi seytaane jay na ko nee na moom J'adore ça te va J'adore. Le blanc avec des chaussures Moi aussi, des chaussures, j'adore. Ça va Le blanc Parfait. D'accord. Je vais me changer alors. Nice. D'accord, je vais me changer. ok.

ya? Why baby? Why eu parei go? Parei go, me lembro, tá? Ato, vai. Ok. Ya, merci. Amé kontaan naa trop. Keroog moom li nga def wax dëgg yàlla raar na. merci ya, merci maa lay remercier bu baax a baax yow borom baax nga. merci li nga def yombul de. Eh? y' a aucun problème ñoo fa. tu es mon sauveur ah. c' est gentil. allez eh, Andrea. oui doo génn pardon Dadi. oui. ah bii toj na bii nga defar. Hmm. ah yank nag yaa ngi fooy sa xaalis. ok qui euh, Dali le Doudou? elle ma copine Andrea. ok alors si je bi mais vous expliquer, m'expliquer Je ne avoir un un problème en fait je vais vous sauver. ah ok c'est gentil. ok d'ailleurs c'est gentil ça va ça va bien tu vas bien. bien. Euh, am na c'est ma C'est ce qui avait motivé ton voyage là. Mm-hmm. alors euh, je. Voilà, à propos de l'accès à l'eau, tu en as discuté avec euh, les partenaires mhm, Bien sûr, on euh, a ci on hein. très longuement defal naa leen exposé et tout ça mhm. donc euh, ak recherche yi a ci mhm. maintenant le document est prêt Les premiers sur place les deux moyens, nous concerter concerté wu rek position on va signer ou pas bu ko defee ñoom bu ñu comme ça ñu mën accélérer les choses parce que ñoom loolu rek la ñuy xaar une fois ñu signé bu ñu bëggee même à l'instant même nous dugal une avance ñoom pare oui mais euh, bon moi, euh, ils m'ont appelé. Mm-hmm. d'ailleurs euh, avance boobu. Mm-hmm. ñoom ils sont prêts à tout donner. Mm-hmm. léegi signature rek vu l'importance maintenant du projet je suis prêt à signer franchement je ne sais pas je voudrais avoir vos avis hein, pour que nous signions signer ce document euh, c'est de l'argent qui va booster l'entreprise mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. bien bon écoutez j'ai lu les documents mm-hmm. très attentivement d'ailleurs mais am na loo xam ne dalul sama xel daal am na ci loo xam ne dalul sama xel de une aussi forte somme ñu jox la ko comme ça comme ça ma gis condition yi mu àndal moo tax man daal sama xel daal tey na ci trop daal. monsieur euh, Mbène Cheikh cher, lan moo fi nekk document yi leer na lire nga ko liir nga ko man lire naa ko. tout à fait et puis man dofuma bi ñuy dem fi concerté wu nañ wax li ñuy défendre ñu dem fofu les mêmes arguments la fa défendre mais où est le problème lu do doo signé du ma signé parce que man bu may signé lu leer lay signer te gis nga document yi beaucoup liraté bu baax y a beaucoup de zones d'ombre les zones d'ombre Manam, li mu bëgg wax ay galgal ñoo ci. très bien ay galgal et de vrai galgal. gis nga grand Liratal c'est sa document la Qui? depuis biñ ko nommé directeur de fondation il commence à nous les pomper. non. il y a sonal ah à nous les pomper man nga à nous les pomper man maa la ko wax Cheikh. man maay sa morom nga naan laa lay pompe. mais kon man sama dem bi ma dem ban njëriñ la am. mais dem bi dafa loo fa man ti jëlee dafa war a leer man lu may. séddale lu leer lay wax lu ma foog mooy li nekk ci dugub yi. dafa desee leer nag nañ ko leeral ba mu leer nañu ñu soog ko signé. kon yow yaa xamul dara. yow mi yaa xamul man écoute man li ma jàng. kon donc yow xamoo li ma jàng jàngoo ko ma ma jang jàngul bo jangon du ma la fekk fële ngay taxawaalu ma di la sa taxawaalu. on se calme taxawal kuy taxawaalu nga gisul. s'il vous plaît malgré tous tes diplômes. mais su ma leen ngeen may c'est archi faux. ok grand merci archi faux. su ma leen ñaanee da ma fekk ma jël sama congé. su ma leen wax ma li ma wax ma ñew Cheikh su ma leen pour vous aider. c'est quoi ça. ma directeur fondation ko bëgg a ah, bëgg a ci bopp bi. ma dafa wara lèr nak nag lu may def day lèr lu may day lèr ah. la signature m'engage moi-même en tant que directeur. waaw légui ne mais pas négocier mais ma ne négocier ne négocier s'il vous plaît. vous vous rendez compte mais vous. vous vous rendez compte euh, je crois que il faut faire revenir les esprits et puis. Euh, je pas ma signature n'importe quoi. Bah, mais toi aussi il faut écouter. vous n'avez pas continué à palabrer comme ça. amul ben njëriñ. man su Je leen wooyee ci c'est parce que tout simplement je bëgg ñu date mature wala ñu am mature si vous voulez mais pas cette discussion-là et puis l'angle c'est un détail les yow tu remarques remarqué ay zone d'ombre madame est galgal tibir mais l'angle, est galgal tu n'es pas d'accord pour signer sommes sommes d'accord pour signer galgal peut-être que nous les ko mais explique-nous en tout cas les

Je ne jël pas de papa ne ah sama ñaxu cere sama sukkaru ndekki dégg loolu loolu moom neex na di lu yaay sama moom na moom def neex na moom gis nga yow bébé sa téléphone mi ngi sonné attends dinaa ko pause gis nga yow dama nekk ci benn business waaw ñaanal suba mu neex tu seras la femme la plus heureuse du monde ah loolu moom neex na di neex na dégg ça c'est une bonne nouvelle ah. allô yeah boy boo <laughs> comment vas-tu boy non attends calme-toi défendant, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe comment ça mais vous quand vous récupéré mon ma mais chérie calme-toi parle doucement s'il te plaît. mais bon policier pas ban y yo, booy naka la ñuy mën a sunu deal ba mon mot mais yo, yo, comment tu peux être incapable à ce point. Non bu yow tu es en pour ya mais on naka la ñuy tegee 4 mois benn business dara desul lu dul lekk nga naan man j'ai pas chérie calme-toi. non doucement doucement rek. calme-toi calme-toi parle doucement Boy, tu as intérêt fekk ma sama kër tout de suite bu ma la fa jiitoo du baax ci calme-toi chérie. ok. baax mais qu'est-ce qu'il y a. mais bul dem foo jëm sax ba tey ñu ngi nekk si jàmm foo jëm seytaane gaaw la de. attends Galgalie. Moi, une aussi forte somme une somme aussi colossale nous devons comme ça engager le nga condition de restitution Nous ni ñuy delloo xaalis bi na nga ko Ouais, il faut lire entre les lignes. dedans, grand. Tout est mis dedans. On non. Avait, on avait dû mais, mais, mais depuis le début. Avant may dem nga nga wax ma ne zone d'ombre yi leerul ci man. mais doo bàkk ba ñu dem ba ñëw. ba dem war a c'est joxe suñu kàddu nga ñëw nga ne doo signé. non c'est parce que li nga indaale la xoolaatal texte bi ñu la jox. relis les textes. bi ñuy ñëw ci condition yi yaa war a li ngay xool. non non non non non sama signature dal lu leer lañu koy ki à moins que ñom ñu defat condition de rétribution yi. ba eh, ma gis nga tu n'es personne nak dégg nga en tout cas ñu fi nekk di négocier. Eh. nga bëgg fa nekk bëgg tok ci ñi kaw. mané togu ma grand bii la mané ma ne investir xaalisam mënon na duggal fenen wo mama wo la. xam nga luma lay yëgal man sama xam-xam momu fi indi bu ngeen nawul won sama xam-xam du ngeen ma fi jël xam-xam bobu nak dama koy utiliser xol bu baax limay signé ak luma ma dul signé lu leerul duma ko signé. bon écoutez il faut que ce soit très clair. c'est très bien léegi vous m'écoutez.

revient sur ça nous ñu le document bi sax s'il le faut parce que on est trois à décider ñun ñaar mënuñoo d'accord pour signer après avoir lu yow ànduloo ci tey suñ doon voté tey ñun ñaar ñi kañen ni la mais man du ma wéy ci loolu ba tey compromission la bëgg ñu ba d'accord en tout cas luñ luñ fiy def dëgg la njëriñ la mais na pour dëgëral lii nga xam ne ñuy sumb dañ cette discussion là il faut l'arrêter hein. et nous allons boire tranquillement nos cafés ba pare jour bu on va relire le document ne serait-ce que pour alerte bi je crois que bien. Euh, tu es prêt à relire le document hein et ñu def une proposition parce que les partenaires <coughs> nous bousculent pour qu'on signe euh, ce document là afin que nous versions la somme la somme ça m'arrange beaucoup

yow Tyco ko nekk bàyyi loolu nga j'ai une mission très importante à te confier Bye, lépp nga ok 还行，还行。 papa toj nga fi wala man maa fi toj papa toj naa jóge xoolal. yi chef doy na laa wax. non. ma wax mu naan. eh kay. dama changé sama téléphone. kay fii laa wax mu naan dama changé téléphone. Aïcha lan laa la waxoon lan laa la waxoon nga nekk ci àll bi di taxawaalu ba heure bii à cette heure tardive ngay soog a ñëw naan dama doon chiffon dama doon lu kenn xamul. jënd ay cheveux naturel xaalis bi nga yor di ko pasar pasaree pour lan ah moo xam ne cheveux naturel boo bëggee cheveux naturel mënoo defar sa karaw mu sëq lii di karaw jàmm dong la lu nekk nga jënd ko lu nekk nga jënd ko di yàq xaalis mel ni yow xaalis bi comme ça ça tombe du ciel ah sa dox bu bëri bii la ma bëgg mu arrêté nag dégg nga li ma la wax ah taxawaalu rek dugg fa pour lan Mohamed na wala Andrea xool kii doo ko ba soxla ko ba jot ko ca wàllu bopp du dara. wala Andrea. Andrea man. wala ñu dem Gallem. yow xanaa balaa ñuy yegg kër Andrea fajar jot amay wax wax wool Andrea. ma bàyyi nga man wala Aïcha. Aïcha man. parce que ñaata Aïcha nga xam. wala Aïcha. Aïcha papa fiir boobu dem këram fanaani foofu waaw. buñ ne seen papa ñu génnee mu far ñu génn daf ñuy xool ba fajar wax ma leneen waaye yow da nga mel da nga am yow loola dal yow lii yëpp suñu baay bi njur moon ko teg parce que dafa bon bu bon woon du ñu yegg si fii sedd bi mu génnee ñu nii si sedd bi daal pour ñu sol ko ci kër génn ak moom man bu ma tegoon ay tërn amul problème mun naa am feneen fu mu naan dox ci mbedd sama jeget rek su ma ko amul problème sama jaga su ma ko rek amul problème ñii def ñoo bëgg baax na ba suba incha man dinaa xam na lañu ñu def ñun moom mbedd fanaan ci. non fa lay dakk tey lay dakk xam nga foo jëm te nekkoon sa maire jàpp ay tool ni doo xam koy woo heure bi nii ah. ñu génn waaye moom mu toog ci kër gi génne say doom dàll sax solu ñu ko après ça mu ne ko ñu ngoon paab dafa bon dama ah leen wax loolu ngeen bañ a dégg ah naa seen boy kaay nii. waaw ma toog waay. waay kaay nii waay yow bàyyi ma toog rek waay kaay nii dafa sedd kaay nii. kaay nii dafa nii. papa xaw ma fan nga mere mais xam naa ne defuma la dara papa joxuloo ma xaalis pour ma dem def ci samay course pour sama anniversaire bi. mais bu jar na nga taxawaalu ba heure bi. waaw lu nekk nga jënd ko. waaw doo def nànk rek nga dama àndoon ak sama copine yi dem jënd ci. jënd nañ li ñu jënd yépp ah may ñëw nga may yuuxu encore papa lan la. man je sais que ni man ak yow amuñu problème moi je le sais. xam baax ne. feneen nga amee problème mais c'est pas comme ça li ngay def nii c'est pas bien pour toi baaxul ci yow papa ak sa état waroo di mer waroo di énervé wu baaxul ci yow suis pas envie de te perdre maintenant su fekkee ne nii nga nar a continuer ça ne va pas xam nga man du ma def loola naqari. non il est vrai que ce sont ces gens-là qui m'énervent bëgg ma signaloo yoo xam ne man dara leeru sama dara leeru man lu leerul du ma ko signé surtout muy xaalis nag une somme aussi importante ñu bëgg ma ko signé lool je refuse. d'accord tu sais que je t'aime bien. pareillement pareillement pareillement. dama bëgg nga calmer wu nga dem sangu ma defal la nga reex dégg ok merci ma fille.